ñu leen di nuyu tey boroom bis bi teew nag ki ñëpp doon xaar muy yaawa mm-hmm. yaa internet yëpp ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi laa nga nuyoo. bon maa ngi leen di fay di kontaan bu baax vraiment parce que <laughs> xaw ma la laa war a wax. parce que woote nit ñëw mm-hmm. yombul quoi mm-hmm. ba pare sa famille. xam nga tey. <laughs> te lan nga yëg. bon damaa kontaan rek. parce que su ma gëstoo gis kii rek. bul yàq may leen ko mouchoir bul yàq maquillage bi sa papa presque mën nañ ne trois heures de temps bu ngi toog di la xaar def ay seede yu rafet ci yow. seede yoo xamante ne doom bu nekk ñaan nga yàlla sa wayjur def ko ci yow kon tey jii sa papa bu defee seede yooyu ci yow da dàbbali mu gën a neex bul jooy waxal ak Sénégal. Ah. six lady ma ne ko loxo seen rose. <laughs> Mm-hmm. ndeysaan. Mm-hmm. nit amul lu dul bisam mhm. sama école laa bàyyi tey sama directrice dafa wax ma ne ko bay boo nga daa xam ndeysaan mais yaar jaral na ma ko yaar ni ñu jàppee nii yàlla ba yàlla may la lu ëpp lii amiin amiin yaa baax yaa boore ñëw sa kër ñuy siis wala nga ñuy xoolee beneen bët waaye suñu ñëwee dañuy yaatu takkalal ko yëg mhm. boo amee million wala milliard ko mhm. soo ko yëgee rek yaa ko sonal nit ñu yëgee nag yàlla nañu dund ba leneen ak leneen xaj ay sa papa ngi toog tey lan ngay wax tey damay sant sama yaay. Mhm. sant sama sama papa. Mhm. parce que lépp ñoom la. Mhm. des fois dafay métti nit ñi duñu xam. lan ngay dund. dëgg la mais am nga ay waajur yu la comme xon yu nekk ak yow. am nga ay nit yu la yàlla booleel. te. ñi ma yàlla booleel nii damaa sant yàlla bu baax ci ñoom. parce que jooyu ma dara quoi. man nag ci liggéey lañ ma yar. liggéey laa xam. ci laa màgg. ba ni ma toll. di rayante pour am lu sàngee sama diine ak sama ngor. mooy li ma sama papa jàngal. parce waajur bu nekk waajur nga. mais nag kenn moomul kenn. dëgg tey jii suba ba tey mu ngi fi. Mhm. wàcc kaamil ba tey. mën na bañ am sama jot. Mhm. mu dem mais man xam naa ne bu ma ko fa teewoon ba suba fii lay toog. Mhm. parce que moom mooy sama xarit. gërëm na sama xarit la. mais ku ma ku ma bëgg la sama baaba daf maa bëgg ba xam ni daf maa bëgg. te jur na ay doom nag. mais man yàlla moo ma boole ak moom te mu nag mu ko aussi yaay bu uuf ñëpp la mënoo xam kum jur ak kum jurul mais dafa am loo xamante ne bii bu amee damay sant yàlla bu baax parce que nit ñi man moomuma leen moomuma nit ñi ba ku nekk war a mën a ñëw yéen ñi taxaw kañ ngeen fi nekkoon su ma meloon beneen nit bàyyi naa bu yàgg daw naa bu yàgg mais man du ma nit kuy daw parce que doomi gaynde laa duma ma daw ku xam bàyyi daam moo jur yaa awa bu leen kii dafa ragal sa war nga wax ni du dëkk parce que nekkul ci man yaruma ci loolu aussi du du ma yaafuus te du ma def lu ma gëmu lu may def te gëwuma ko yàlla bu ma ko àggali waaye nag su ma santee gërëm lépp kenn rek laa koy delloo monsieur Rive Seyni parce que mooy sama yaakaar tey ak ëllëg ndax nit bu amee jom dafa am lu tax muy am jom dafa am ci ku muy xool te man samay waajur rek doon nañ ma doon ma seetu quoi te man Cheikh Ousseynou Laye mooy sama lépp mooy sama kanam mooy sama ginnaaw mais nag peut-être nit yi les gens des fois duñu comprendre waxee base nit bi lan la man lu ma mënti ñàkk aussi am naa samay waajur. non man de ñàkk am naa sama famille fii kenn raxuma je peux dire ñëpp sama famille lañu ñii man ak ñoom ñooy nekk H24 man dama voyage démb laa ñëw une heure du matin enchaîné jusque ak weeru koor bi lépp ñii taxaw ñoom ñoo ko def lépp ñoom ñoo ko rangélé mu jigi dama leen ne denc leen lii ñu ñu def après mu jeex ko tellement ko ñoom ñoo sonn ñoom ñooy def lépp man du ma du ma des fois sax du bëgg sax def yenn yi parce du ma leen xalaatee rek lu bari duma ko bëgg def sama àdduna mais jom laay demee ak fulla ak fayda parce que dama koy wax chaque jour àdduna yaafuus du avancé fii Sénégal ragal du fi dem ku bëgg dara aussi boo leen képp ku la naan na bu doon man la wala bu doon moom mu def triple lu mu fu muy jaar ba dem def loolu prox ndoll bi pour dem def ko mais nag comme ni wax chaque jour rek sama papa day faral di wax si moom laay liyee baat boobu moo yàlla mu bind guddi ak bëccëg ku léegi woon naxaar guddi ak bëccëg kuy naxaate ak ku dul naxee doo def preuve def nekk ci ay waxu kase taxul nit def dara te lii dama ne c'est une c'est une début au fait parce que ku xam yaaw xam ko ci liggéey tey ki taxaw ni maanaam moom ñoo bokk ndey ak baay mooy suñu taaw kër mais ñun ñëpp si liggéey lañu si liggéey la ñu nekk quoi ci liggéey la ñuy la xëy si la ñuy gontu si si lu ñuy jëmale kanam chaque jour si loolu lañuy nekk tey am na si ñoo xamante ne fii ñu ngi fi yor caméra di ma xool mën nañ xam li may wax ku ci mel ni Mérim Improd depuis le début na kan mooy Yaa Awa yaakaar naa ne si ñi njëkk a wane si la bokk te boobu mi ngi nekk TFM loolu dama koy wax aussi parce bës bu toll nii jar na man ma wax ko Médoune M xot ci ñi nit yi ma njëkk gëm ba may wane mën na ko yow waxee mën na ko yow la nga may jëlee mu ne ma nii yow waxal rek kon kooku bokk na ci nit yi la poudige ba tey nga mën a dem ci kaw kon nit ku may remercier la aussi sama life am na ñoo xam ne faw nga gërëm leen parce que ñoom ñoo la def tey li nga doon ay nit yu participer sa sa life la ba tey nga yegg si fii même boo leen gisul de près de loin naa leen gërëm sama biir xool parce que tax nañ man ma am jom mu ay nit yoo xamante ne ay yaay lañ ñi ay frère lañ ñi ay sœur lañ ñu lay jàppale ci lépp te xam sa benn yaay boo xamante ne bi mosuma teg bët mais daf ma gëm wóolu ma États-Unis la nekk soit du lay la tudd mu gëm ma trop ci lépp léppam la may jiital amul lu ma koy wax moom mu ci am arrière pensée pour ne ma ndàngam lu ma ko wax daan man ndàngam yaay nangam laa soxla bagage yi may jaay bëgguma mu jóge fii damaa bëgg yëre xale yi mu ne ma lépp mën na jóge États-Unis mu ñëw Sénégal nga jaay ko prix bu la neex man duma ma la prix kon kooku mu lay dimbali pour bëgg nga liggéey tey bi may ñëw di jël si fii yaakaar naa sama benn xarit laa àndal maa ñëw finaliser ko may xëy chaque jour ci bi ak ku tudd Babs VIP ñëw fi njëkk ànd ma moom ñëw ñu xool mu ne ma mu ne ma bul xalaat nañ ko jël mm-hmm. mu ne ko Babs Liberté 6 fi mu ko jël lu ñu am rek jël jël ko def lépp ci si mu ànd ak man ay amul lenn loo xamante ne bii benn nit moo ñëw ne lii maa ko teg fii walla nàngam mm-hmm. lépp ñu ànd ci di ko dox di ko wax mm-hmm. parce que am na ci ñoo xam ne aussi faaw nga gërëm leen mënul ñàkk faaw nga remercier leen aussi sama yaay depuis le début def nga lii man sax moo may yee loo jur nga dem nga xool bitig bi ndax def nga nangam wala nangam sam papa waxi noppi ba ma ko jëlee tag dama ko woo mu ñëw ma ne ko fii de laa jóg mu ne ah, dina baax mu ñaanal ma dem chaque jour bu may fan nga toll yaakaar naa ne ba mu paree ak léegi mat na deux mois ci ginnaaw avant appel mais man bu appel bi jibsee rek loolu mooy gën a nekk sama yitte kay leneen ma bàyyi ko kon ci appel bi bab si gisu naa man yaaw doo tëj boutique bi li pare na bu yàgg lan ngay xaar mu ne ko bàyyi ba appel bi jàll après lu may def ma doog ko def mais loolu yëpp sama ngëm-ngëm laay demee ak sama ak sama ak euh, for xam naa ne am na benn mental bu nekk ci man mooy que ni man su ma xasee ba jàpp benn affaire tànk que daggul du ma du ma bàyyi mooy que ni mu bëggee benn affaire tànk que aw ma ko du nekk sama jàmm te dafa am nit ñoo xamante ne ñoom ñoo lay forcer pour sa journée ba nekk ci kanam te ku ñëpp di xool dangay jaar fu d'accord parce que sexualisme bàyyaa sama benn xarit moo ma ko moo ma ko defloon maam Diarra Thiam maa ngi koy nuyu de passage Jojo Gloskin ma xarit la mhm. ñu toogoon nii rek mu ne ma nii comme da ngay jaay affaire euh, forme et tout ça dafa sexy ladies nga xamante ne ñëpp dañ ci mën a bokk mhm. xaj si man bi ma demee tam ba ubbi ma ne non du ko changé dama koy bàyyi nu mu meloon ma continuer ko mais dinaa jaay lépp loo xamante ne nit dina ko soxla mhm. ci dundam et tout ça après ma continuer. parce que ñu ci ëpp ci céréales lañ la xamee ci yére xale rawatina yére mag. d'accord xam nga man man dama bëgg xale. Mhm. di ko xale samay xarit lañu. damay bëgg tout le temps lu may def ñoom mu ciy gis seen bopp di ci nekk à 100 pour cent. Mhm. moo tax ma indi yëre xale indi ay yére mag mhm. indi ay produits yoo xamante ne bi ñëpp dinañ ko mën a utiliser. ku nekk mën cee gis sa bopp. est-ce que mais bien sûr gis nga produit yëpp mi ngi fii. peut-être liñ kii moo tax mënul génn mais yëpp produit yëpp mu ngi fi mhm. ku ci bëgg boo ñëwee da ngay ñëw ñu xool ñu waxtaan nga wax li nga bëgg mhm. ñu wax la ni muy demee ak ni nga ko bëggee mhm. whatever mu jàll incha allahu rabbi nee naa ne lii lu ndaw la lii ñaan yàlla mu ay showroom ay ay ay dizaine de personnes di liggéey ak ñun parce que boo nekkee ci réew ñu lay tudd doyul mais da ngay liggéey lu jariñ réew mi te ñun si loolu la ñu nekk parce que ay porteurs de voix lañ dañuy wax nit yi duñu déglu dañuy wax nit yi duñu bàyyi xel kon ku ñuy bàyyi xel da ngay teg da ngay teg lu leer parce que ñi taxaw sama ginnaaw man bu ma waxul ñoom mën nañu wax ku ma ciy àndal dama naa leen jigéen day liggéey jigéen warul xaar góor parce que góor boo fi xaar mu yàpp la nit da ngay liggéey loo am nga xam ne li yow yaa ko amal sa bopp nga def sa bopp ak say waajur ba lu la ci fekk yow nga jël mais boo toogee di xaar nekk yaa fuus lu ñëw nga foog ne yow yaa ko néew ma doo def de mais di nga def loo xamante ne du neex suñu borom te bu ëllëgee tamit di nga ko layoo parce que nu mu mënti doon ak fu mënti doon aussi ci àdduna bi loo mënti def ak suñu borom la yàlla moom mi ngi gis lépp et que ñi ne ci yoon bu baax xam nañu ñi ne ci xam nañ man ñi may àndal ñii ñëm ñëpp samay doom laa leen di wax parce que loolu moo nekk ci man en loolu laa leen di xoolee parce que ku ku xam doom ak yaay nu mu mel di nga war a xam diggante nit ak nit nu muy mel di ku noonu laa jàppee ak ñoom mënu ma leen seen tur dama dem voyage mat na 15 jours nekkuma fi mais lépp moom mooy ñëw di ko gérer bu 8 la yeew lépp matin soir ñoom day bind man ma xëy gis man dama di ma leen waaye ma leen ngeen ñëw ñu ne ma 8 heures fi ñëw ma leen la mooy loolu mu ñëw fekk leen laax ak lépp ñoom ñoo dem togg defar lépp ñoo teg ko comprendre nga kon loolu complicité moo ko waral yàlla boole ñu aussi muy sincère mu yàgg te nekkul dara loo xamante ne daf ko rax mhm. ñi taxaw ñëpp ñoom ay salon ki salon moom la yor ñu yor seen i boutique dañ ko tëj ñëw parce que juste man maa tax ñu def ko soo ba tey mhm. kon nit ñooñu awma seen fay yàlla boole na ma ay nit yoo xam ne mënuma leen a fay mhm. kon ñii dama leen di ñaanal ku ma bëgg na ma ñaanal yàlla bàyyi ma ak ñii ñooy sama njaboot ñooy sama lépp ñoom ñëpp Fatima Ndey Bint Tubaab Euh, Layla sama lakkal ah ñoom ñëpp nani mënuma lim faama kii ñoom ñëpp sama kër la ñu nekk xam ma kon loolu rek famille la boo xam ne dara moom mëntu ko dindi ñoom mag yi jenn ba tout moon mhm. mais du ma remercier kenn sama yaay dama koy gërëm di ko ñaanale yàlla mhm. di gërëm Penda aussi sama grande sœur ñu bokk ndey ak baay mhm. mais moom mooy gën a sonn ci mbir bi fajar la allo yow yeewul nangam ak <laughs> nangam ko waan nga lépp rek parce que loolu mbokk moo koy moo koy lii ak ñoo xam ne dañoo suude ak tamit yar bi ñu yar ba ñëpp ñu mën nekk si jàmm Papa Samb yaakaar naa yéen ñëpp fi fekk ngeen ko fi maamu moom ñoo bokk ndey ak baay mais sooba tey toogul taxawul mu ngi nekk ci lépp et xam nga kon loolu rek sant yàlla la kii toog nii bàjjen ndaya wax lu tudd suñu bàjjen na ñun ñëpp muy ku baax koo xamante ne bii si lu ñu nekk day ànd ak ñun di ñu di ñu di ñu protéger xam nga mënu xëy peut-être soo waxoon ne bàjjan diw bàjjan diw la après nañ ko interprété neneen mais nit la goo xam ne daw dara ci yaa awa dafa ma bëgg te yàlla rek tax mu nekk nit ku baax nit ku dawul ku ragalul féete parce que kii toog nii mën naa présenté ne bàjjanu Sidi Diop la moo papa Sidi Diop bokk ndey ak baay waa mu jàpp ma bëgg ma te yàlla rek tax seen famille presque ñu bari ñu ngi ci biti kon loolu famille la boo xamante ne nit moo du ko dindi loo xamante ne lu nekk la waaw loolu mënul ñàkk mais jusque ah, ce jour mi ngi ak daa daw waaw moom dafa ragal ay nit loolu yëpp rek ak euh, complicité bi nga am ak doomu aadama yi moo koy waral ak jàmm bi ak salaam bi ak sa frère yi nga xamante ne dañ la jàppale de du début jusqu'à la fin Euh, ñoom Mouta Diop suba teel du ma mënuma lim te du ma leen du ma leen lim parce ay frère la yoo xam ne tout le temps ñu ngi lay encouragé di bëgg yow ngay dem ci kanam di bëgg ngay avancé ay Jules Awalaay ay ñoo xamante ne bii mënoo leen ñàkk sax ba ñu wax sa carrière parce que ñu ci jàpp lañu ñu ngi ci jàpp te tout le temps ñu ngi lay woo fan nga toll lan ngay def et tout ça vraiment aw ma aw ma fayu nit yi quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. maanaam lan mooy forger yaa parce que critique yi bari d'accord mooy mooy mooy li ma la wax mooy am na am na toogaay booy toog mooy waajur soriw la quoi yaa ngi diisoo ak ñoom man je communique avec avec mes parents ci lu ma nekk damay wax ak ñoom dañuy waxtaan parce que sama papa la du ma amee lu ma am lu ma ko laaj parce que koo xamante ne bi euh, jaar na fu nekk liggéeyoo de koo xamante ne bii euh, moom am na ci yum jaar bokk na ci ay ci ay ci ay yenn groupement yu bari ci Sénégal jaar na ci ci yu bari bokk na Jamra bokk na fu nekk kon kooku dina la mën a orienter ci life pour nga mën a xam fi ngay jaar parce que ku dul waxtaan mënoo xam àdduna bi ni muy doxee quoi te man je communique avec mais parents sama yaay aussi moom sama sama sama papa am naa aussi ay conseillers ñoo xamante ne damay waxtaan ak ñoom pour man di jëlee ci ñoom lu bëree bëree bëree bëree bëri pour juste que saa su ma génnee wala saa su may def dinaa def loo xam ne kenn du ne accam et que dinaa bëgg di du du ma bëgg di dinaa bëgg di impressionner nit ñi mais pas di leen impressionner sur du négatif parce que tey su ma defee dara ñëpp xool ne lii ma def baaxul ñoom seeni bët dinaa jéem bu ma koy defaat ma def ko ci loo xamante ne bi dina baax et dina dina neex doomu aadama yi même bu dee mënoo def à 100 pour lu neex nit ci maa ko tijji sama propre moyen mais maa ko tijji sama propre moyen ñi xam ne li may wax comprendre nga. sama propre moyen amul partenaire amul dara nee naa la am na ki ñoo xamante ne ñooy mooy ñi ci jàpp mooy ñi nga xamante ne mën nañ la wax lii fi nga ko mën defee wala fi nga ko mën a utiliser te benn nit la muy sama yaay Suwaadu lay États-Unis bagage yu bari presque mën naa ne foofu lañ ko jëlee ñu indi ko foofu parce que moom moo nekkee côté boobu à loolu amul kenn ku ñëw ne ma am lii financement la demal nga def ko sa pare nga delloo ma sama xaalis lépp sama moyen bopp laa ko defee d'accord xam nga xam nga tey showbiz moo nekk loo xamante ne du xew yi boo demoon cent ans boo ñëwaatee showbiz fu mu nekk lay nekk moom du fa bouger sa bouge pas te ñun ay nit lañ yoo xamante ne ñu ngi dox dañuy nekk di ay mère de famille war nekk ci leneen kon war nañoo jéem a teel a euh, cadre suñu life am fenn fu ñu koy teg nga xamante ne lii boo ci jugee mu leer na ne lii yow yaay dem bàyyi ko fi parce que moom du dem di la fi bàyyi yaay teel a teg ko après nga dem fo euh, focus sa liggéey jéem am ci loo concentré nga nekk ci loolu. mais xamante ne bu ñu waxee famille famille loolu dara mootu ko dindi xam nga nit lu muy dagg lu ñu xamul mais xame kenn mënu koo dindi te nit looy daw day fekk la nga la nga doon daw baaxul ñun ñëpp ay ay êtres lañ et que am na loo xam ne dañ koy sàmm te dañuy continuer di ko sàmm ñuy dee Sidi ba déwén ginnaaw déwén frère lay nekk sama lépp lay nekk parce que sama xarit la nit ku baax la nit ku am yërmande ci nit la et di wax ak sama papa di wax ak sama frère chaque jour kon am na loo xamante ne bii nit nit ñi du ñu comprendre nag base bi mais moom xam na yaa awa xam na te sama xarit la sama lépp la parce que nit ku baax la nit ku xam nitam la que du tey quoi 2017 à 2022 xool 2023 du ay ñetti fan kon kooku yàgg na xam na ma xam naa ko sama frère dara du ko dindi du am benn virgule bu ñaaw buy dox sama diggante ak moom parce que jiwante wuñu loolu quoi nit ku baax la ah yooyu nag moom wóoruma moom parce que sama moom ma wax la benn affaire man fi ne nii moom mën na ma coup d'état mook te du ma ko yëg parce que ñoom ñaar li ñuy li ñuy dundee vraiment ëpp na sekk lool te kon foofu bu lu ñaaw bu amoon day dégager sama rakk mais que naa ne ñii nii tax ni yëpp bu ñu jógee fii ñoom fii bu paree woon nii dañuy dem baal ji ko kon loolu famille la lu mënul dañ ñii di toox ba xam yow fii di famille lañ bokk ñii nii nekk ay doom foofu laa na xamee woon mais loolu tey lañ kon ne gën a nekk ak man te suba gën a dem ànd ak kon lu dul dañ la nit yi dañuy dañuy du ñu xàmmee nag des fois li ci kaw ak li ci suuf dañuy dañuy duñ ko duñ ko distinguer quoi les deux mais lépp benn la et ku nekk da ngay pare nga nekk sa live quoi bien sûr lépp lépp nice ñëpp ñu ngi si jàmm ñu ngi si salaam boo xoolee man ma defuma sax ay Mumbai ak lii parce que juste cadre travail laa woote mooy liggéey nit ñi ñëw ñu ubbi bi ñëw visiter ko après c'est ça mu jeex